asalaamaaleykum ah, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di baalu ñëpp àq te di baalu ñëpp àq surtout waa presse bi ñun ñu ngi baalu ñëpp àq euh, ci kàddu armée ah euh, di wax rek ah, tey ñu ngi fii si benn barak ñu ngi fi tey si benn barak ñëw seet si xarit benn barak bi gannaaw ba mu bëree ki nga xamante ni moom mooy cat bu booy bambara ci arène nationale. tey nag mu am combat boo xamante ni ñii dañ na revanche. kuy jël si revanche muy ki nga xamante ni moom mooy euh, ambulance bu cees war a bëre ki nga xamante ne moom mooy armée armée nag mu nekk combat boo xamante ni ñu bari dañ koy xaar tey nag ñu ñëw ci goxam gis ay politiciens bien vrai que nag ci kiiw campagne lañ nekk mais mën nañu wax ne xel dal na ndax jàppale yi mu doon wax yëpp man ñi ma fi gis ci politicien xam naa ne moom supporters yi duñu mer dañ koy bàyyi nag mu nuyoo après nag ñu dugg ci li nga xam te ne moom mooy question réponse yi Armé maa ngi lay nuyu aouzu billah bisimilah inna wali yàlla Fatma maa ngi lay fay avant tout di nuyu suma waa dëkk waa Mbayla Ndour di nuyu waa tund Bawol bi suma waa dëkk waa daaru mbëri daaru di nuyu juróom-ñaari mbëri yëpp di nuyu képp kuy bëgge armée yëmbal benn baraak Malika Boun di jégalu nag waa presse bi yëpp di di jégalu tamit suma gaay yi fi nekk di bis benn toll ndax dañoo dafa dafa dafa tombeek événement campagne mënta ñàkk mu xaw a déborder tuuti mais ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax bu doon suñu sago day teel a ñu leen ci jégalu bu baax a baax a baax a baax waaw di wax onze billah onze billah onze billah mina seytaani rajim armée man fi may commencé mooy ñu gis ne da am benn détermination boo xamante ni dafa mel ni victoire en poche nga indi muy sa fecc sa côté corpulence ak li nga xamante ne moom mooy état physique bi lan moo tax loolu waaw ñu ngi sant yàlla rek lépp lu ñu war ci combat bi def nañ ko ànd ak suñuy nit ànd ak suñuy coach ànd ak suñuy xarit ànd ak suñuy am di jàmm euh, surtout nag di beral sant suma gaay yi suma gaay yi staffu armée bi di ko commencé si Pape Thioub Elimane Tigo ñoom Toubé Taxaak gaay yi kulluhum Mama Talla bu ma limee mën naa juum Serigne Faye kenn demul mu des ñoom laata ak Assane ñëpp armée armée yi jàpp nañ ci combat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw bu sama xel dalee ci ñoom la. ñu bari dañ ne armée li tax mu teel a jox ambulance revanche ndax gis nañu combat yi am na combat boo jëloo mais sa combat ak fëgal préparé ko combat bi nga jëlaat ambulance lan moo tax choix boo noonu ambulance moom moo fi sës wala yow yaa préféré bëreewaat ak moom. Fatma Dia làmb ji li ci nekk xam nga ko euh, at day dox te boo xoolee presque ñu ngi bëgg def deux ans yu nga xam ne dañoo toog defuñu dara. mënumaa jël benn avance nekk ci di xaar ku xam mu ngi États-Unis tëdd. waaw moo xam la mu fay def yàlla ko si yàlla jàppale. man lutteur laa maa ngi fii di bëre. combat boobu jamono woon dootuma ci waxati. Euh, booy bëre da ngay bëre koo gis. en plus wala promoteur bu mën a tëgg. ñun yàlla dogal na ni. Abdou Lahad moo bëgg suma combat xool. adversaire bi ma njëkk a proposé. dama ni ko bu sama staff d' accord muy Pape Diagne Seras ak Talla ak ci aju. man pare naa man aw ma lu may tiit wala lu may ragal. Mhm. Ouzin. comme fi nga ñëw fi nga fi nga daana la laa ñëw revanche bi dafa teel loolu moo waral revanche bi ak diggante Armé moom gis nañ combat bi ni mu demee woon lan la ñuy wàcc ci combat bi. waaw yéen a jàpp ne 2017 lañ bëre woon yaakaar naa nit bëre na fi matul sax un an wala un an rek ñu bërewaat yéen a gis ne daa gàtt mais su ma juumul 2017 ak léegi su matul cinq ans mu ngi koy bëgg a jege. waaw kon kon te ñun ñëpp ay ndaw lañ ah boo bëreewul ak moom da turne tourner bëre ñeneen wala ngay xaar ñun temps boobu amuñu ko ci làmb yàlla dogal na ni benn adversaire bu nga xam ne tey armée moom la waroon a mën a bëreel ñu tëgg sama combat mayuma ko chance mayu ma ko dara dañoo war a tase war a tasewaat te ci kàttanu yàlla li jàlloon jàll na xam nga lan moo bees mooy combat bi ñuy jëm la 16 may ñaan yàlla ci kàttanam ak mbaaxam yàlla may ma ndam bu seddu guy incha allah rabbi mais dafa am benn bor boo xamante ni da ko lebal say supporter à chaque fois damay dégg ñu koy wax. ñu gis ni sa combat bi nga jógee ñu bari daam fuñ la doon xaar état physique beeg lépp ñu gis ne yaa bëre yaa daanu sa combat ak ambulance lan lañ mën a xaar ci armée parce que bu ñu nee armée ni mu est que gis nañu fecc bi dëgg la mais tey lan lañ mën a xaar ci armée loo xam te ni tey ay supporters am bu ko xoolee dëgg. waa di leen woo rek ñoom ñëpp ñu ñëw ci fair play comme ni ma koy waxee sangu ba set sol ku am sa jeesneer solal ku am lu neex looy jënd jëndal ñëw toog jël place bul bul xuloo bul xeex ci kattanu yàlla ak mbaaxam ma delloo buum ca booy booy oh. loolu maa ko signé ak ñoom ci kattanu yàlla ak mbaaxam dara du si général ñoom al ak waa écrit benn barak mbooloo yëpp ñoom Hercule ñoom fu ne gars yi ma fa dal su ma jëmee fee ñu ma fii su ma jëmee fee ñu ma fii gars yi dañ maa liggéeyloo lépp lépp lépp bàyyiwuñu dara dara dara waaw lu boo bëggee dégg dégg bàyyiwuñu dara bis bi rek la ñuy xaar combat bi parce que tey moom pour diriger ambulance ndax tey ñu kenn du dem guerre naan lii mooy samay arme en tout cas la liggéey ak samay coach liggéey ko sumay nit ci kattanu yàlla ak mbaaxam dinaa ko répété jour làmb loolu rek moo am solo arme arme ñu gis sa combat diggante yaa ñu gis nga dégage benn excès de confiance bu doy waar amaan na ñenn ñi sax nee loolu moo la daaneel est-ce que yaa ngi sóor loolu si biir lamb yi wala mën nañ xaaraat ak caat kii nga mooy armée ci indiwaat bi ñu kon moom caat booy boo caat waaw armée bu demee ba amul ñu ñëw di lox loxol wala di di mu bàyyi kenn forcé wu na ma da ngaa war a nekk mbër oo ma bàyyi mbër man maa sama bëgg-bëgg la sama passion ma nekk ci li ànd ak man bëgg ma ci ba mënatuma cee dellu ginnaaw kon bu ma amee lu may tiit wala lu may na daan ñëwee laay ñëwee na daan bëree laay bëree la daan def laay def. dinaa dem ba suñu passé lépp lu ma wax rek dinaa dox ci loolu ñu gisee sa digganteeg cat ak sa digganteeg ambulance poids bi nga indiwoon indiwoo ko tey lu waral loolu. waaw peut-être euh, loolu nga gis waaw mën naa mën naa nekk nag mais pour man changement bu amee tamit bëriwul liggéey nag am na fu muy toll waaw di nga daj coono yu nga xam bu ko boo noppaluwul rek du mën a feeñ. da ngaa wàññiwoon da ngaa yokk. waaw man léegi fi mu nag wax dëgg yàlla mënu maa xam ma xam yokku naa wala wàññeeku naa. mais bëre est-ce que mën na cee amaat non bu ko rawee am bu ko rawee am su dëggalee boppam gëm boppam bu yàgg dëggalee boppam su dëggalee boppam gëm boppam yaa ay taw lañ combat bu neex la ñuy bëri musuma bëri combat bu neex sama combat yëpp wala ay bëri ñu ñu naan yëg naa nañu dëggal boppam jàppale bi tax ñu naan ci mbër dafa des man bu ma benn booy bu nga xam ne day bëri ñaari kaara koy topp su may bëree damay mobiliser loolu dafa métti ñoom ñoom ñoom ku ci ku ci ku ci ku ci dem miti nag war ngaa xam ne mobiliser dafa métti ci ba maar bu benn kaar bu nekk li nga koy fay aller retour lépp bu bëggee gën ci day métti mais ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant tamit dib di Samba nag eh, Samba Ndiaye Samba Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax parce que jàpp na ci combat bi te nee na maa ngi koy gën a loxo mu jàpp ci kaar yi ak tike yi maa ngi koy trop bëgg naa loolu am buñ ma appuyé rek bu baax ñu ngi sant tamit politiciens yi fi yëpp maa sant bu baax ku mel ni Paa Mansour Sow Alay Soare ak Daouda Ndiaye monsieur le maire Daouda Ndiaye euh, Samba Ndiaye député maa ngi leen sant bu baax yëg nañ ko ñu yëg nañ leen Matar Diop ñu ngi bu baax a baax jaar na ko. da ngay gis mu sànni chaise yi bu ñu ko démb amaat na xëy na jënd bu ñuy daal ban chaise yow ban message nga jox say supporter ak lan ngay waxal man yoruma supporter yu ndaag man ay noobu laay. li may wax chaque jour damay sant yàlla li ma bëri ci combat musuma taxaw buntu police musuñu ma àtte musuñu ma dagg na sama supporter sant yàlla la ngor googu ak jom googu amoon nañ ko gën a continuer te 2-0 dafa xew de ah. loolu maa ngi koy yóbbu ba sa la ci bàyyi xel 2-0 yu bi ñu may sant rek jëri woon production di ko ñaan yàlla bërëb bi lépp yàlla defal ko te na li muy def te engagement bu mu wax def def na ko mu bëri loolu moom très important beaucoup de promoteurs yi nga xam ne dañuy téye mbër bi liggéey loola ba nga tas entraîné loola jël sa xaalis yëpp def ko te du la apporté dara waaw. di sant suma gars yi rek di sant sëñ Bas sëñ Bas Soose maa ngi koy sant bu baax a baax di sant waa Petite yëpp di sant waa Casamance. di sant waa mbiri Aane Ndiaye di sant waa euh, di sant suñu suñu benn xarit Omar Omar Gandiaye maa koy sant bu baax a baax a baax combat def na ci rôle bu am solo di sant suñu tamit euh, sama benn xarit jiiri jaay ko du bés dérange dafal na na moo xam ne naa ne jokkoo bi ma dëkk maa ngi mu def ko ci man jokkoo laa dëkk mais ñi may jàppale Orsay bi dëgg la de fii laa dëkk fii laa am lu ma am fii musuma am combat am ku ma ci yëkkati cinquante mille bay ma ko. ma ne baax yàlla bu kenn xam sama soxla maa ngi ñaan balaa déwén yàlla bu ma kenn fajalati soxla may faj soxla yëpp ci bàtt Seydina Mouhamed yàlla mën na di sant nag surtout Ifra. Ifra kan di sant sama père Aliou Ndiaye. combat bi naa ci lool ndax gisuma ko. su ma daan jàppale daanaka lu bëri yëguma ma woo naa ko woowati ko woowati ko mu ngi koy mu ngi koy sant bu baax bu mënee jàpp ci combat bi baax na bu mënul yàlla baax na ñu ngi dem ak suñu ngor daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na ñaar defal jàmm yàlla defal leen jàmm